asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki réew mi ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di commencé suñu kàddu rek di musli ci seytaane ar rajim moom mi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala dem na ba wax julli ñi ne leen bu ngeen dee jàng alquraanu karim bala ngeen def lenn musli leen ci musli leen ci seytaane pourtant yàlla mën na ko bañ a wax ndax alquraanu karim téere bi yàlla la te yàlla moo ko gaarante inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun kon mën na ko sàmm ba seytaane du jaar ci moom wala ku tiim alxuraan di ko jàng waaye déedéet yàlla may gum may seytaane ak jay gum ko jay ba muy daw ci deret doomu aadama moo tax yàlla wax ne bu ngeen di jàng alxuraan ka ne ngeen muslu ci seytaane fa ida qara'ta alxuraan fastaid billahi min asheytaan rajim yow yonante bi wala yéen jullit ñi bu ngeen di jàng alxuraan ka ne muslu leen ci seytaan wax leen audu billahi min asheytaan rajim waxuma la ak nag kuy déglu waxi doomu aadama waxuma la waxuma la ak nag kuy liir téereb doomu aadama kon alxuraan lañ mënta mucc ku koy jàng bañ la yàlla wax ne mucc si seytaane asama kuy déglu waxi doomu aadama wala nga di ko seetaan wala ngay liir téereb doomu aadama mbokk yi bàyyi leen xel ci loolu. mbokk yi fan yii am na lu rëy lu commencé am ci réew mi rawatina ñaari fan ñett yii nga xam ne képp ku xam dara wala nga xam pexem seytaan ni mu ni mu baree. ak ni nga xam noonu la daan def ci yonente yi daan ko def ci saxaaba yi daan ko def ci awliya yi waxuma la ak ñun ñi nga xam ne ay nit ordinaire kese lañ da nga tiit da nga jaaxle da nga tiit da nga jaaxle waaye boo tiitee jaaxle bu fekkee ne aji ngëm nga bu seytaane ñëwee nar laa laal nar laa merloo war a nar laa jaxasoo war ngaa bàyyi sa xel ci aaya wi suñu borom subhanahu wa taala wax ci alquran di tagg gaay yu gëm yàlla ya waaye yàlla wax ne inna alladina taxaw ida massahum taifu min asheytaan tadakkaru fa ida hum mubsiruun yàlla nee na day ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla gis nga de ñi ragal yàlla la wax waxut sax ñi gëm ñi ragal yàlla ragal yàlla xam ngeen ne lu jafe la maqaama la ragal yàlla dëgg koo def doo jëw doo fen doo rambaaj doo iñaan doo soxor doo jaxase doo féewale ragal yàlla loolu lay def ci xol waaye teewut yàlla nee na inna alladina taxaw ñaa ya nga xam dañoo gëm dañoo ragal yàlla bokk ida massahum daifu min asheytaani bu fekkee ne seytaane ñëw na laal leen tuuti bëgg leen a merloo wala bëgg leen a jaxase seeni xel ngir ñu dëdd topp yàlla subhaanahu wa taala yàlla nee na ñooña dañuy wëlbati ko at xippi seen i bët xool xam ne mer gi may mer ak lii ma bëgg a jaxasoo ak kàddu gi ma bëgg a yëkkati waxi seytaane jëfe seytaane la ñu gaaw na rëkkët ne a'uuzu billahi mina seytaan rajim delluwaat ci yàlla seytaan daw bàyyi leen mbokk yi ku xool fan yii lii am commencé am ci réew mi ci waxante ci diggante tarixa yi ci sullante mbóot ci ojante ci saagante ci xastante ci Facebook bi da ngay toog bi jàgg nga ne ndax lii moo la mag ñi digle wala ndax seytaane moo ñëw dugg ci benn ci lenn xol yi ñi nga xam ne dañuy woote woon ne mag ñi lañ topp seytaane man leen jaar seen biir ngir ñu bëgg a yàq jàmm ji nga xam ne moom la fi mag ñi baax ñu bàyyi déedéet kallaa mbokk yi loolu duñ ko nangu duñ ko nangu mukk duñ nangu mukk jëf ju baax liggéey bu rëy bu sell bii nga xam ne sunu mag ñu baax ñi awliya Allah taala bàyyi nañ ko fi duñ nangu mukk kenn ko yàq donte xam nañ ne seytaane moom yàlla mën na ko jay na ko ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy baax baax ba baax lépp bi mu fi jógee saxaaba yi wuutu ko seytaane ñoo dugg seen diggante di jaxase bañ rey ay saxaaba loolu jëfi seytaan noonu moo tax ñuy wax ne la xewoon ci diggante saxaaba yi sax loolu jërul net li da ngay noppi bañ caa détaillé bañ caa def benn commentaire kon ñoom seytaane mucc woon ci ñoom mucc ñu woon ci seytaane kon ñu mënuñu mucc seytaane ba tax na bi fi mag ñi jógee ak léegi wala boog jamono bi ñu dund gis nañ ay nit ñoo xam ne ñi ngi jug wax dëgg yàlla di sulli ay mbóot di sulli ay wax di sulli ay vidéo ndax bërki démb ak tey li fi am nga xam ne xëy na ay njuumte la njuumte mënut a ñàkk ci kenn ku mat doon dañuy wax ne li kulli aalimin xëfa wala kulli jawaabin kaba borom xam-xam bu ne da nga am xëfa mooy da nga am rëcc-rëcc waaye rëcc-rëcc ga boo ko amee ba yëg ko la nga koy war a faje mooy tuub delluwaat yàlla subhaanahu wa taala jéggulu loolu képp koo def dañuy xam ne yow borom xam-xam nga te nit ku sell nga waaye li baaxut mooy nit koo xam ne da ngaa juum ba pare rëy rëylu ne du ma tub mbokk yi bërki démb am na wax joo xam ne rëcc na jóge ci sunu mbokk ne yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne kullu lim ne aadama xataa wa xel xataa at-tawwabun doomu aadama yëpp dañuy juum waaye ñi gën ci ñuy juum mooy ku juum ba pare jéggulaat yàlla subhanahu wa ta'ala damay wax ne fasu naaru guru yi daw rek mooy fakkastalu borom xam-xam buy wax rek mooy juum borom xam yi gënoon mag dañuy juum sax ba buddaat ab téere deltuwaat ginnaaw kon asamaak ñoo xam ne dañoo jug di góorgóorlu di di wisaare diine moo xam tarixa bu mën doon moo xam tijaan la moo xam murid moo xam xaadir la kenn ku ne ci borom xam-xam mën ngaa juum ndax juum jëmbul kenn waaye juum bi ci gën nag mooy gu juum deltuwaat ginnaaw mbir yi bi mu amee muy sëñ gànn mes rek yàlla ko yàlla sàmm ak mbooleem ñuy wax ci diin ak tarixa bu ñu mën a waxee tey waxee ci xam-xam yàlla na yàlla sàmm ñoom ñëpp la ñu ñaanal ndax ñun ñëpp ñoom lañu fi nekkal def na benn xëy na loo xam ne njuumte la waaye bi mu ko defee tamit ñun lañ ca waroon dox war ko wax ci bis yooyu ci jëm jamono yooyu def nañ ko ak suñu diggante ak ñoo xam ne waa kër alhaaj ibrahima Niass suñu kër maam jooju lañ bokk ci ay taalib yoo xam ne xër nañ bañ leen waxee lañ leen war a wax ñoom ñëpp jëlaat nañ vidéo yi ñu doon def lépp teg ko ci suuf alhamdulilahi rabbil alamin suñu gànn mesara bi mu demee TFM moom tamit xam na ne li yontu salance wax ne doomu aadama bu ne da ngay jum waaye gënt gi jum mooy deltuwaat ginnaaw jéggulu na mbooleem koo xam ne kàddu googu metti na la wala naqar mu jaaree ko nag suñu kër waay jur alhaaj ibrahima Niass te dañuy wax ne nit ñi ñooy tàqale waaye mbooleem mag ñi benn dañu woon rawat na mbooleem mboole rawat na ñi bokk ci tarixa tarixa tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Sërif radiyallahu anhu xëy na lenn ci taalibe yi ak lenn ñi xamut wala fanatique jàpp leen ñooy jaxase waaye ñoom ñëpp benn nañ mu mel ne tuub googu da ko jël teg ko ci loxol waa kër Alaaji Ibrahima Niass pour mu jàllale ko ci mbooleem koo xam ne soppeeb Cheikh Ahmad Tidiane Sërif nga wala ab taalibim nga loolu jàpp naa ne bi mu amee mu def ko kanamu TFM wax dëgg yàlla ya li gënoon a jekk gënoon a yàlla mooy ñu xam ne njuumte am na def na ko jéggulu na mbir ma kon war naa jeex foofu waaye dafa déedéet dafa mel ne seytaan dafa jugaat dugg suñu biir la yàlla doon wax yoon maanaam doomu aadama yi yaa bani aadama laa yaftinakum seytaanu kamaa axraja abaakum mina jannati yanzi'u anna libaasahuma loolu dafa mel ne mooy waa ji dugg si ci biir réew mi di Sénégal ndax bu fekkee ne dafa am ñeneen ñoo xam ne jugaat nañ di jëlaat wax jooju nga xam ne sëñ Gana waxoon na ko xëy na yàgg na 2018 loon ñu koy sulliwaat ñun tamit ñu toogaat bi jàg gisaat ay wax yoo xam ne am na ay kilifa xëy na yoo xam ne waxoon nañ ko ci yeneen tarixa jëmale ko ci yoonu murit ñu gisaat ay taalibi murit tam juwaat di sulli lu mel noonu dañuy tiit dañuy tiit dañuy jaaxle loolu moo tax ñu yëkk suñu kàddu di wax xam ne seytaane ku yàlla may la ku yàlla jay la koo xam ne day fekk nit ñi war a dund ci jàmm ak salaam mu ñëw ne déedéet du ngeen fi dund ak jàmm salaam daa leen jaxase yàlla waxoon nañ nag seytaane heure bu ñëwee bëgg leen def lu mel noonu xam leen ne la ngeen war a def mooy delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala te moytu seytaane ndax seytaane inna seytaan lakum aduwwun mubiinun seytaane du leen bàyyi mukk ngeen dund jàmm ak salaam yàlla wax ne qul li ibaadi lati qul li ibaadi yaqul lati ahsanu inna seytaana yanziq baynahum inna seytaan kaana linsaan aduwwun mubiinan loolu yàlla wax waxal sama jaam yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen nañuy wax la gën a rafet nañ xam ne seytaan day jax-jaxas seen diggante da leen di féewale da leen di maanaam jaxase waaye bu leen nar a féewal nar a jaxase bu ñu waxee la gën a rafet rek yàlla mën na leen ci muccal kon mu mel ne kon li ñuy woote mooy mbooleem tarixa yi moo xam murid la moo xam tijaan la moo xam xaadir la yii nga xam ne am na ay rëcc-rëcc am ci lenn ci ay kilifa yoo xam ne waxoon nañ ko tem jeexoon bu yàgg ñu nar ko sulliwaat fi kenn ku ne naan ah waxal nga ma ne waxal naa la ñu nekk di xasante ak ŋàññante loolu dañ koy condamné dañ koy ñaawlu wér te di leen wax ne jëfi seytaane la jëfi seytaane wallahi du jëfi benn bëgg mag du menn mag mooy woote di ko bëgg ba nga koy défendre ba tax ngay sulli nga yeefit na loolu benn mag diglu ko wallahi si Amady Diagne Sëriñ diglu ko Sëriñ Tuubaa diglu ko Alhaji Malick diglu ko si Abdou Khadir Jilani diglu ko Alhaji Ibrahima diglu ko Maam Abdoulaye Niass kenn ci ñoom suñ kene ba wala suñ njaasaan kenn ku diglu waa Imaam Laay amut kon jëfi seytaan loolu nag ñun ñi nga xam ne lii ñu mag ñi bàyyee muy seen yoon yu sell yii nga xam ne xéewal la duñ nangu mukk bàyyi ay benn benn ci ay taalib ak fu ñu mën a taalibiroo jug di ko jax di ko yàq loolu tax ñu taxaw ne dañuy def déclaration waaye duñ ci yem incha allah lii ab ubbite la ñi ngi jug waxtaan ak kilifa yi nga xam ñoom lañu waxtaan ñu bari jot nañ leen Tiwaawan jot nañ leen Kaolack Tuubaa tamit jot nañ leen incha allah rabbi lii dee su ko bàyyee nii seytaane si bëgg dugg ci réew mi te bëgg ko di ko di ko jaar ci biir weeru koor nga xam ne weer la woo xam ne weeru dellu ci yàlla la weeru jéggalante weeru yërmande la ñu bëgg cee laxasu bëgg cee taar réew mi loolu duñ ko nangu te incha allah rabbi dana cité responsabilité ñi nga xam ne dañoo nekk ci Facebook ak réseaux sociaux yi di yeelu mel nii loolu duñ ko seetaan premièrement li li war ci wàllu yoon des na ko def ndax dañuy yëngal jàmmi réew mi troublement ordre public lañ bëgg a def wala jaxase réew mi lañ bëgg a def loolu nag xanaa état du ko seetaan waaye ñun tam duñ ko seetaan insha allahu rabbi liñ ci war lépp war ko def ñi ngi coordonné AIS mi ngi coordonné mag ñi ak ñi nga xam ñoo nekk tarixa yi nan lañ mën a dem ci plateau yi télé yi waxtaan waaye saisir état tamit mu jël cybercriminalité mu jël ay mesures yoo xam ne ñi nga xam ne dañuy toxal ay audio wala ñi nga xam ne dañuy sulli ay ay ay ay vidéo jàmm ak waxtaanu jàmbur moo xam tijaan la moo xam murid wala xaadir la te bëgg yéefit na ñu jàpp leen yóbbu leen ca yoon la yoon wax ñu def ko ndax jàmm ju ñu am duñ nangu mukk ku ñu ko ñàkkal duñ mang ñukk ku ñu ko xañ muy jàmm ji Sénégal am kon daal lii lañ doon ubbee mbokk yi di wax ne nañ delluwaat ci yàlla musu ci seytaane xam ne seytaan nag dana nekk jinne dana nekk doomu aadama ndax doomu aadama heure boo yëkkatee kàddu gox boo ko yëkkatee da lay wóor na bu ko nit ñi déggee mer loolu jëfi seytaan yàlla na ci yàlla musal la la war mooy nga tubaat del ci yàlla subhanahu wa ta'ala te ñu jàpp ci xéewal gi nga xam ne yàlla moo ñu may ndax bu ñu ko jàpput mën nañ ko wecceeg loo xam ne wala yes billahi taala yàlla na ci yàlla musal yàlla moom la alam tara ila ladina baddalu ni'mat laay kufran wa ahlu qawm daara bawar xéewal gi ñu yàlla bàyyi muy lislaam xéewal gi ñu yàlla bàyyi muy yaram mag ñii muy tasawuf bu ñu ko wecceeg mukk weddi yàlla suma subhanahu wa taala mooy di di xuloo ak xiiro ak ŋaayoo ba yàlla alak ñu loolu yàlla na ci yàlla sàmbur musal kon ñi ngi woo ñi koy def nañ deltuwaat ginnaaw waaye duñ ci am ñun danañ jug taxaw liñ ci war a def saisir état dana ko def dana wax xalifa généraux yi dana wax tamit ñi nga xam ne ñoom buñ ñëwee ci télévision wax ñëpp dañ la dégg incha allah AIS dana taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh